multiplier nañ ko par juróom benn ci wàll ñi nga xam ne am nañ feebar bi mais aussi si ñi nga xam ne wér nañu eh, damay wax ni aussi même su fekkee li ñuy wér bëri na foog ñun suñu li ñu gën a ëpp solo mooy cas yu bees yi lu ñuy def ba nga xam ne cas yi nga xam ne dina wàññeeku parce que gis nañu fan yi cas yi ñu am mi ngi yokk bés bu ne ci wàllu aussi ñi faatu ci weeru avril bi am nañ ci juróom parce que weer bi ñu mujjee ñëw fii benn rek amoon donc yokk nañ ci juróom-ñett loo xam ne aussi am na solo di jaale famille yi nga xam ne ñoo gaañu yëpp di leen ñaanal yàlla xare leen ajana ci wàllu gox yi nga xam ne aussi ñoo am euh, feebar bi ñu ngi woon ci juróom léegi jàll nañ ci juróom gox région yoo xam ne am nañ ko si suñu district yi nga xam ne aussi ñu am ci Sénégal ñu ngi woon si ñaar fukk ak ñeent léegi ñu ngi jaar si ñe euh, fanweer ak ñett région yoo xam ne am nañu euh, kii bi feebar bi ci wàllu góor yi ak jigéen yi nga xam ne ñoo am feebar bi presque dañu dañu méngale parce que li ci góor yi ñoo ëpp tuuti jigéen yi mais bu ñu xool ci statistique bi presque benn la feebar bi nag ñi mu gën a laal si suñu euh, si suñu statistiques yi mooy ñi nga xam ne am juróom ñaar fukk ak juróomi at ba ñeent fukk ak juróomi at ci loolu presque euh, ñeent fukk ak ñeent ñaar ci pourcent bu njëlee téeméer bu ne ñeent fukk ak ñaari ñoo am feebar donc ñoo ñu ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a am feebar bi donc gis nañu ñi gën a nekk xale lay gën a jàpp. su ñu xoolee ci xale yi tout tànk yi entre ñi am euh, ba juróomi at foofu bu njëlee téeméer bu ne juróom rekk ñoo ko am suñu demee nag ci mag yi ñi nga xam ne am nañ juróom benn fukki at topp ñu jëlee téeméer fukk ñoo am feebar bi. Eh, gis nañu aussi ci foofu juróom ci mag yi nga am euh, juróom-benn fukkaat fa la ñuy faatu surtout nekk gis nañu aussi ci feebar bi am nañu ñaari ñoo xam ne wér nañu ba ñu génn ñu defal leen seen des ñu amaat feebar bi dellu si waat kooku dinaa bàyyi professeur Seydi bi yore mbirum faj bi mu dellu si beneen mbir bu am solo aussi ci feebar bi mooy dañu gis ni dafa am ay nit yoo xam ne dañu wàll ñu bari moom lañ naan cluster di nga gis benn nit bu wàll lu ëpp ñaar fukki nit te loolu am nañ ci lu mat presque fukk ak ñeent ñoo xam ne bu ñu xoolee lim bi ci téeméer bu ne euh, ñaar fukki lañu ñu wàll donc euh, lu am solo la te loolu bu ñu ko xoolee peut-être ci wàllu dëkkin bi la kër yi ni ñuy ni ñuy nekkee ci kër yi ak kër yi nit ci ni ñu ciy bëree mais également am na yoo xam ne ci wàllu ay euh, ay kilifa diine la aussi ñoo xam ne ñoo amoon feebar bi te gis nañ ñi nga xam ne ñoo leen di wër mais aussi am nañu ci cas yi benn centre d'appel foo xam ne dañu fay dajale ay surtout ay xale ñuy wuy téléphone di joxe ay renseignements donc am nañ ci cas yi donc cluster yooyu dafa am solo ci wàllu feebar bi te euh, ci Sénégal loo xam ne war nañ ko xool bu baax a baax ci ñi nga xam ne nag ñoo euh, mooy ñi ñaan contact yi mooy ñi nga xam ne ñoo taxoon ñi ñi am feebar bi fi mu nekk nii ñi ngi si euh, juróom-ñeenti junni ak juróom-ñaari téeméer ak benn. ñoo xam ne bi feebar bi tàmbalee be léegi ñooñu lañu gis euh, ñi ngi continuer di xool parce que am na ñoo xam ne bu ñu defee seen fukki fan ak ñeent dañ ci génn fi mu nekk nii ñi ngi xool juróomi junni ak euh, ñaari téeméer ak euh, ñaar ñoo xam ne ñi ngi leen di topp fi mu nekk nii suñu service yëpp ci laboratoire bi tamit am nañu fi mu nekk nii fukki junni ak juróom fukki junni ak juróom-ñaar Euh, yoo xam ne teg nañ ci juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak euh, juróom-ñaar yoo xam ne def nañ ko ci ci depuis bi mbas mi commencé et ci wàllu test yooyu nag li ñuy wax mooy ñi ñu testé mooy ñi nga xam ne surtout mooy ñu nekk contact yi loolu la ñu yokk parce que gis nañu comme mbas bi cas yi bëri na donc contact yi dafay gën a yokku donc test yi foofu lañ ko yokkee donc stratégie bi nga xam ne moom la ñu commencé woon moom la ñu continuer ba léegi ci wàllu bërëbu fajukaay yi am nañu juróom ñetti gox yoo xam ne foofu la ñu am ay bés ay euh, bërëb yoo xam ne foofu la ñu fajee maladie ci boobu am nañu euh, ñaar fukk centre yoo xam ne foofu la ñuy fajee nit yi ci ndakaaru rek am nañ ci fukk ak benn yoo xam ne bërëb yu ñuy fajee nit yi mu nekk ci hôpital Fann am nañ ci ñett mooy service euh, maladie infectieuse bi réanimation maladie infect euh, réanimation bu Fann bi ak centre hospitalier de Malte am nañ aussi bu nekk Dalal Jàmm Diamniadio principal am nañ fa ñaari centre service maladie infectieuse bu principal ak seen réanimation bi hôpital général Grand Yoff euh, hôpital Dantec ak clinique du Golf aussi am nañ fa centre am nañu aussi benn centre bu ñu tijji boobu dafa xaw a particulier tuuti mooy hôpital psychiatrique mooy ñi nga xam ne dañu am problème foofu dañu fa am ñaari malade yoo xam ne dafa am benn accompagnant bu leen wàll donc foofu comme faj bi dafa xaw a am particularité donc ñooñu dañu leen téye ci centre ba yónnee leen ay jumtuwaay ak ay nit yu leen jàppale pour ñu faj leen ci foofu. am nañ nag centre boo xam ne pare na boobu amagul malade mooy bu nekk hôpital régional de Thiès donc bu ñu gisee nii feebar baa ngi yokku donc cas yaa ngi yokku donc dañu xalaat ni dañu am problème mu place parce que li am solo surtout mooy ñu bañ a euh, handicapé c'est-à-dire euh, gàllankoor fajum hôpital bi parce que du Covid rek euh, mbas bi rek moo am ci Sénégal am na yeneen feebar yu fi nekk te ñooñu il faut ñu faju donc loolu tax na ba am nañ ndigal si suñu njiit ministre de la santé pour ñu xool feneen foo xam ne du hôpital war nañ fa mën a faj nit yi donc loolu gis nañ ci euh, am na aéroport bu Léopold Sédar Senghor foofu am na benn hangar boo xam ne njiit réew bi président Macky Sall jox nañu ndigal pour ñu def ko installé nañ ko ba pare. Euh, l'armée aussi jox nañu ñaari bërëb yoo xam ne dañ fay euh, dañ dañ koy jël mooy seen centre bu nekk euh, centre d'entraînement bi nekk Thiès ak benn centre boo xam ne mu ngi ci Gerew foofu dinañ fa mun a aussi jël en charge nit yi li ñu mën a dalal rek mooy centre yooyu dinañ fa jël nit yi nu mu waree donc dañ fa yóbbu ay docteur dañ fa yóbbu ambulance teg fa donc foofu ñi nga xam ne feebar bi daanu leen am na ñoo xam ne am nañu jàngoro bi mais amuñu benn. mandarga seen yaram wala ñi nga xam ne mandarga bi néew na ñooñu lañ fa bëgg a yóbbu ba nga xam ne suñu l'hôpital yi dañ fay yóbbu ñi nga xam ne ñoo gën a sonn donc loolu dinañu dimbali lu baax te bu ñu xayma li ñu fa am ci lal am na nañu euh, ñeenti téeméeri lal foofu donc loolu di nekk loo xam ne dina am solo bu baax a baax donc di vraiment di gërëm forces armées parce que jàppale nañu bu baax ci liggéey bi ci wàllu nit ak ci wàllu personnel mooy terminer rek ci euh, si ndigalu ministre de la santé aussi Croix-Rouge parce que Croix-Rouge am na aussi rôle bu mag bu mu am ci ci euh, ci mbas